ba tey mbokk yi ñu ngi ci seen émission bi nga xamante ne mooy kàddu muudu muudu yi lii nag firndeel la ndax dañu démarré li nga xamante ne mooy émission bi suñu sang suñu lépp daal di ñëw toog moom itam bokk ci biir fi nga xamante ne mooy kàddu muudu muudu yi duñu def lu di tamit daal di koy jox suñu micro. Mbacke maa ngi lay ziar. waaw soxna Marina ñu ngi lay fay wax salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Mbacké ñu ngi lay wormalaat pour mbokk téléspectateurs yi kii mooy ki nga xamante ne mooy maam Thierno Sané di imam ah, di ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nii sunu sang la moom kon Mbacké ñu ngi lay wormalaat di gën a yeesalaat ci ñu ñëbbal ci yow di la jox kàddu gi nga wax ñu ci li nga xamante ne moom mooy association kàddu moodu moodu yi. awzanillahu mina sheytaani wa qaadali manaafi al awtaani bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba Xadimal Mustafa soxna Marina ñu ngi lay ziar bu baax kàddu yoo xam naa yu gàtt lay doon. ndax euh, euh, suñu borom moo ci boole waaye yitte lañ doon dox rek ba fekkee jataay bi. li nga bokk nag ak liñ la boole ak lii sa mbir. dadul benn lii nag day suñu mbirum bopp ndax li ma waxoon rek ab jullit moom lu mu fekk lu baax rek waamee fu la day jàpp ni yëfama mm-hmm. euh, ñuy ziar Serigne Bassirou Amar mi nga xam ne mooy jëwriñu association bi ñuy mm-hmm. kuréel goo xam ne kuréel gu dogu la ci li ma gis ak bi ma ci tàbbeeg léegi ci euh, jàppandalu Iba Kara ñi nga xam ne sunu mbokkum bi la sunu lépp la wax yàlla li ma xam ci ñoom daal mooy nii am nañu objectif am na yitte ju kawe tam yitte ju kawe ci lu ci li nga xam ni mooy seen mooy seen i mébét waaw te itam mbir la moo xam ni euh, liggéeyal yàlla la laa jàpp ndax euh, doomu aadama nit nitay garabam nit mënu dund ci lu dul doomu aadama yi laa yastatiul insaan laa yastatiul insaan ay yaisha munfaridan te ñi doomu aadama bi amul kenn koo xam ne mën ngaa dund ci lu dul doomu aadama yi faw góor day jàpp ci góor rek góor jàpp ci yàlla. Mm-hmm. kon nag euh, association la boo xamante ni dimbalante ak jàppalante ak xamante. kon wax dëgg yàlla loolu ñëpp leen war a jàppale rawatina état du Sénégal wala mm-hmm. képp koo xam ne borom tur nga wala ngay borom doole. Mm-hmm. wax naa ko Cheikh Mourou Kara mu rafetlu ko lool ndax ku ne xam na ni la mooy yërmande Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne dafa war a daj fépp ci àdduna bi ndax irham jamial wara la sëñ la Sëriñ Tuubaa ñaan suñu borom yërmal mboolem jullit ñi yërmande jooju nag ci baatin mën na koo doon waaye zaahir si nag baatin bi la jubloo wax mm-hmm. waaye zaahir si itam maanaam faw maanaam dafa war am lu ko firndeel mm-hmm. te ñi seen jéego yi itam day dox ci loolu mm-hmm. kon nag euh, wax dëgg yàlla te sëñ Basiru mi xam ngeen ni doxul ci caaxaan kilifa yi ci bokk itam ay caaxaan ñoom yéene lañ am rek ak bëgg-bëgg di ñaan suñu borom kàttanal leen doole leen ci biir ak ci biti ba seen yéene yëpp ñu mën ko mottali te nu ànd ko ak ñoom itam ndax ñu itam Cheikh Mourka dañuy liggéey partout dans le monde mm-hmm. réew mm-hmm. liggéey liggéey am solo Ibraka Ibakara nekk Atlanta nekkal leen fa wax dëgg itam mm-hmm. ñu leen di encouragé baax baax daal di leen di leen di leen jaajëfal Mbacké dañu la téye lu yàgg comme da nekk ci yoon waaye ñu bëgg tuuti nga waxal ñu ci jeunes yi nga xamante ni dañuy bëgg a bitim réew daani seen doole te di jaar ci aman anam bi nga xamante ne daanaka di jaarul yoon maanaam ñi nga xam ne dañuy jël ay gaal. Hmm. pour mën a dem foofu. waaw xanaa rek wax leen ni leen hmm, doomu aadama bi moom mënoo ñàkk yëngatu. Hmm. maanaam yaxantu ci loo xamante ni maanaam bépp yëngatu boo mën a def bu yàlla gërëm rek. boo mën a fexee ba euh, suqali sa réew suqali sa bopp ci boppam maanaam maanaam lu baax la waaye nag waaye daganul wala rafetut nga di ko wóoru tam nga di ko jéem a jaar ci yoon boo xam ni sa bakkan xaj na ci mm-hmm. loolu moom gënu gënalut buur bi subhanahu wa taala gënu gënalut sa président réew gënalut kenn ku bëgg lu baax mm-hmm. waaw kon nag képp li ma ci conseillé ndaw ñi mooy képp koo xam ni bëgg ngaa tukki jaaral ci yoon wi nga war a jaar sunu borom bu ko tuddee ci yow rek incha allah yàlla xamul lu war lu jot la xam bu ko tuddee ci yow dana antu bu ko tuuti ni toog na ci réew mi góorgóorlu ji jaay guróom mbaa muy jaay tàngal mbaa mouchoir wala leen leen ba sunu borom fekk ko ca ndax da ngay jàpp ci gàttax ba keroog ngay faru yat waaye nag mm, say wajur am la yow dong wala ngay seenub taaw ñu yaakaar la nga jaar ci ndox mi ci loo xam ne dara leeru la ci sa bakkan des ca wax dëgg yàlla nga yóbbee sa problème say say mbokk bàyyi fi coow loo xam ne wax dëgg yàlla kiimaan la daal maanaam la nga doon wuti sax xëy na du ko far jaar mm. kon nag loolu daal maa ngi duma duma duma découragé kenn nag ndax nit ki nga xam ne moo bëgg a dem bu sañoon du faatu ci mm-hmm. bu sañoon yegg ci jàmm am fa xéewal ñëw teral ay wajuram liggéeyal yàlla def lu baax liggéeyal lislaam joxe àddiya leneen ak leneen waaye nag wax dëgg yàlla nag euh, li gën lu baax lu ne am na lu ko gën li gën nag mooy toog ci réew mi liggéey sa liggéey ba sunu borom jox la ca nga tekki am ca loo mën a tukkee di dem ak a dikk loolu moom bu mënee am daal moo gën mm-hmm. waaw kon nag loolu maa ngi ko maa ngi ciy gën a soññ sama mbokki ndaw yi bu baax ñu ñu ñu gën a ñu bañ a yàkkamte rek te xam ne lu jot yomb insha allahu taala a baax mm-hmm. ñu ngi rafetlu teewaay bi tamit. Mm, jërëjëf jërëjëf jéggalu rek xanaa mm-hmm. kàddu yi lu ci dëng rek ñàkk waaj la. Uh-huh. waaye daal ñu ñaan sunu borom defal association bi jàmb mm-hmm. defal leen jàmm boog defal ko waa réew mi defal leen ko yéen tamit waa seen buzz yéen ñëpp sunu borom defal leen ndax liggéey bi rafet na te àdduna bi yëpp rafetlu nañ ko. wasalaamaaleykum wa rahmatullah